bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi alxail tabaraka alladi biyadihi almulk wa huwa ala kulli cheyin qadir alladi xalaqa almawta walxayata liyabluwakum ayukum axsanu amalan wa huwa alasisu alxafur wasalaatu wasalaamu ala mabuusi rahmatan lilaalamin saydi alawalina walaxirin saydina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ixsaani ila yawmi ddin ورد الله عن خاتم الولاية المحمدية مولاي الشيخ أحمد بن محمد التيجاني الشريف ورضي الله عن صاحب الفائدة التيجانية القائل الموت لا يضر لمن قد سعد بل هو راحة لمن قد رشد mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki àdduna bi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ànd ak ñun safoo Kossy TV télévision bu am njëriñ bi lool ña ngi leen di nuyu di leen ziyaare di jiita ci nuyoo bi xalifatul am saaxibil fayda tijaaniya ki nga xam ne mooy cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass xaadimul umma ña ngi koy nuyu di ko ziyaare di ko ndokkeel ci ajjuma ji waaye di nuyu al imaamul akbar di imaam cheikh ah, ahmada tidiane aliyu Cissé di nuyu ki nga xam ne mooy naatiqu rasmi li hadratil ibrahimiya te mooy cheikh mouhamadul mahi aliyu Cissé mbokk yi ñu ngi nuyu mbooleem njabooti mawlana cheikh ibrahim Niass yi radiallahu anhu di nuyu mbooleem muqaddamam yi di nuyu mbooleem taalibeem yi tey nag ñu ngi fii nii ci Madina Cheikh Ibrahim radiallahu anhu nga xam ne xew-xew bu rëy moo xew daanu ci suñ kaw muy dem ak ki nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadul Aqib Ibrahim Niass ki nga xam ne jëmmi alquran la télévision Kossy TV ma ngi ànd ak yéen incha allah lépp loo xam ne rek xew na fi da ngeen ko jot yéen mbokk yi nga xam ne yéen a ngi Sénégal ak rawatina ñu nekk ci diaspora tey nag ñu ngi ànd ak euh, ki nga xam ne mooy jëmmi alquran ki nga xam ne borom xam la ki nga xam ne soppe la ci ki nga xam ne mooy cheikh Mahamadul boo ñu koy wax cheikh Ibrahima Ndiaye nekk doomi wàllu yàlla bu mag di sëriñ daara Ousmane Ndiaye nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci alquran ci xam-xam ci gàmmoom yu neex yi tey ki nga xam ne mooy cheikh Ibrahima dëgg-dëgg sol. dal baayam taxaw fu baayam taxawoon dëgg-dëgg tey moom lañ ànd ak nii tamit mu sànni ñu ay kàddu eh, ci lan la xam ci cheikh Mouhamadul Haqib Ibrahima ñas kon cheikh Ibrahima Ndiaye télévision Kossy TV ña ngi lay nuyu di la ziar. alhamdulilah gannaaw sant yàlla di julli ci yonent yàlla moom salaay salaam Oustaz Babacar Niass ñi nga wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yal na ni yàlla yoolu suñ musiba uta na lu gën lu ñàkk wax naa léegi na yàlla utal na ba pare fekk ngir feeñu waay yu nga xam ne tey mooy feeñu tey gannaaw bu nga xamee ne ruux gu màgg googu ruux gu tedd googu noonu nga xam ne ruuxam dan na ci paye bar sax kooku mooy kan Mawlana Cheikh Mohamed Aqib ñu ngi koy jaale alxalifa muazam xaadimu ma Cheikh Mohamed May Ibrahim ñu ngi jaale su ko jaalee dinañ ko jaale imam Cheikh Ali Cissé bu ñu ko jaalee ñaar yëpp ñaar ñuñu jaale nañ ko mbooleem ku aju ci fayda Mawlana Cheikh Ibrahim waa jaale nañ ko képp ko aju ci tariqa Tijaan waaye jaale nañ ko ci mboolem ummatu islaam yëpp Cheikh moom Mouhamed Aqib su ma mënoon a àbbu mboon moom nga xam ne moom la yonentu yàlla moo saasam tonton Jibril Jibril ba mu ñëwee wàcc ci pay yonent bi salaay salaam jël ñaari rukk ko yonent bi salaay ko na ko la moon islaam mu wax ko ko mu laaj ko lan mooy imaan mu wax mu wax mu wax ko mu laaj ko lan mooy isa mu tontu ko bam mu àggee lan mooy bis penc am mandarga ga dafa wax ne man eh, yaa laaj moo gën a xam ko mi laaj yaa ngi dégg kon loolu su ma ko mënoon àbbu tey tey yaa ngi man masul an naa bi ahla min saayil la ko wax kii laaj moo gën a xam aji laaj gi su ma ko mënoon a wax danaa ko danaa la ko tontu Cheikh Mouhamed Aqib ci jukko ju baax Cheikh Mouhamed Aqib ci jukko ju rafet Cheikh Mouhamed Aqib ci teel a dégg mbind Mawlana Cheikh Ibrahim boobu nga xam ne dafa waxoon ne rumarodal baari li nusrati diini yi way bri si li jili jëli misaala damay tàggat ndaw yi yaa ngi dégg pour ëllëg ñu wane misaal dëgg-dëgg Cheikh Mouhamed aa lu mu joxe ci liggéey sax Cheikh Mouhamed Aqib xale yu nga xam ne danoo waroon a métier mu xëcc leen boppam ngir utu bàyyi Mawlana Cheikh Ibrahim lu mu tabax ci jumaa yaa ngi dégg waaye bu yàggul rek matu juróomi ajuma dam neen misira foofu nu mu ibbu fe eh, juma daf na ko kër Assane ah lu mu samp ci daara Alxuraan loolu yëpp lépp loo xam ne taalibe yi jox nañ ko mu amutoon dara moom bàyyi rek la amoon bàyyi rek soo ñëwee ci moom bi ñaari baal la lay wax yaa ngi dégg jubal baaxal tabul yàkkante jubal baaxal tabul bi yàkkante muy mi arfu bu gàtt bu gàtt kalima waa bu yaatu maanaa mo moma yaa ngi dégg mboolem loo xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim yaa ngi dégg diggaloon na ko wax na ko rek def na ko moom jëf la jëndee waxam ju bëri parce que wax daanaka amul njëriñ waaye jëfe mi moo ëppoon yaa ngi dégg ñu ngi constitué ñu ngi leen gërëm bu baax wallahi ñu ngi duñ fàtt mukk micro bi bu ko témee danañ fàttali ko Moussa ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla yokk leeram waa weer wi naa leen xamal xaas yu bëri si leen génn weer wi si la sëñ Ousmane Ndiaye génn génn àddina ci ñett fan ya weer wi si la maam Ibra Fall génn àddina koro ba nga na ne teg nañ ko fi bàyyi ma fàttu jàll jël kàddu dama wax mu weer wii si la si Ousmane Ndiaye génn àdduna seel seel Seybra Fall mu nga xam ne mooy ñetteel ci fayda bi moo topp ci si Ousmane Ndiaye ci weer wi la génn àdduna kon sëñ Yaqibu tey bu ñëwee génn fi ak génn fi àdduna dëgg la dafay dëggal na fu mu tëbbalee gaa yooyu noonu foofu ne foofu nañ ko tëbbalee dëgg-dëgg sant yàlla tey wax ne ne moom ne ni ñu ngi ko ñu ngi koy dendale ci kanam ci ci wati bàyyam jub tey du judd waaye yaa mu dend kan wati yaa ngi dëgg ku nga xam ne mooy mooy nu mu tudd mooy mooy tilmi tilmide mu nga xam ne dafa bëgg a bàyyi ban na ko tilmide ju ko sañaa xeb ñoom ñaar ñoo mën a ànd kon dëgg-dëgg yooyu yëpp ay bichara ñu ngi koy jàlle seen Moustapha mu nga xam ne gannaaw bu nga ko jàlle imam Cheikh Ali Cissé dégg nga lu mu wàcc moom wax na ne lu mu nekk moom amul kenn ku ko neew moom ci baax nu mel ni la ma sa mel sañaa xeb biiram mooy bitam man àndal naa moom fii ba tëyit yaa ngi ne ajuma gii passé alxames guddee ajuma gii ñoo bokk nekk fii ne ci ci ci xabru baay bi mu amul dara dara lim melo boo xam ne nit da ko génnee àddina dëgg-dëgg loolu sant sant yàlla la lenn rek su ma ko mën a abbu danaa ko abbu loolu nga xam ne koro ba seen seen ndaar dafa nettali ne mu ne benn bés Maulana Sidaali daf koo lëng na ko ay sindaara koro bo boo fekkoon sa baay ba mu génnee àddina koro ba sa baay génnee àddina ñun ñu waroon ñun ñëpp ñu nga xam ne ñoo nekkoon moromam danoo jaaxle woon waaw Serigne Mbaye moom fu mu aagoon moom fa tàggoo fa tàggaloon sagoom Serigne Mbaye ñes dafa doon wër mbedd Kaolack rek képp kum dajeeg rana la eh ma ne yàlla du def lu baax dayeg si Ousmane Diagne fu mu ko teg waa dëgg dëgg buñ mënoon a wane yàlla mu ne daan def lu baax dayeg si yàq fan la ko teg waa dëgg dëgg ñi ngi sant yàlla bu baax ñi ngi ñaan yàlla yal na yàlla utal te yàlla incha allah danañu utal yàlla teg loxo ci njabootam njabootam la Cheikh yàlla yàggal leen fi dëgg dëgg taalibe nañ xool ci njabootam Maolana Cheikh Ibrahima gi nañ xool ci Maolana Cheikh Sëñ Aqib nu ko neex mu mel moo gënoon a yomb gis heure bu la neexee gis ko sëñ Yaqub dafa doon dox sax gis xar bi ñëw mu may ko mu jàll sëñ Yaqub danoon doon ñëw ànd naa moom ba mu gis ay mbaam yoo xam ne ni dafa leen di maytu sëñ mu sa taw ci yoon wane ne man damaa war a taxaw yoon dafay moytu rek di di moytu rek ñu ñaan yàlla yal na dëkk bi yal na yàlla watu taalibe ko yàlla mënee gan ci béykat mbootam ajuma gii ci barke gaamu gi nga xam ne moom lañ jógee ko waaye ci barke jumaa yu nga xam ne moom la taba dëgg-dëgg waxuma la seen yàq lu mu taba ci juma rek waxuma la moom waxuma la njabootam waxuma la taalibeem waa umu islaam yëpp xañ nañ ca ëllëg ci hôtel bu mag boobu nga xam ne mu ngi koy bokk Mawlana Cheikh Ibrahim wa kullu aam wa antum bi xayr salaamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf euh, Cheikh Ibrahim Ndiaye macha allah ci kaddu yu am yi nga xam ne dëgg-dëgg yëkkati nga ko Kossy Kossy euh, TV ñu ngi amaan mbégte ak kontaan di la ñaanal yàlla dëgg-dëgg euh, yaa ngi liggéeyal lislaam yaa ngi liggéeyal tariq yaa ngi liggéeyal faydu jamono ju nekk ña lay seetaan ci internet bi yaa ngi def ay gàmmu kon nag dëgg-dëgg tey suñ ñëwee fii nii gis la fi eh, yoon la pour nga waxal ñu ci Cheikh Mouhamadul Akhir kontaan nañ incha allah xëy na beneen yoon danañ dajewaat ñu ngi lay njokkeel lay ñaanal di sàkku nga ñaanal Kossy TV bu baax incha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf barakallahu